Yeah, you're right. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. dama ne soxna si après naa yor cinquante mille la ilaha illallah jërëjëf ah waaw jërëjëf mbokk yi ah. tey nag soo seen seen émission dana dalatal keneen ku mag koo xamante ne nii day jàmbaari réew mi salum salum bu mag bi Maître El Hadj Diouf maa ngi lay maa ngi lay fay euh, kontaan naa ci yéen yéen yàlla defal jàmm di ñaan sénégalais yëpp nag ñu préparé ndax affaire yi xëy na neex cuqu na neex na. laay laay li laa ngay jéggal lool Maître El Hadj Diouf. question bi nga lay laaj mooy demi finale yi noo ko dundee. ni ma ko dundee mooy ñu ko sénégalais bi teel a yeewu sango naan nekk Kékéléba. daal di togg baxal saalum ak cere cere ndimba. cere ndimba parce que xamoon naa ne match buy jeex diggante six heures sept heures def mbaxalu puuj paaj bu am laxu oh. bay. loolu laa def kër gi neex def soo ataaya gerte lépp daa de dajaloo sama xarit de ñëw kër gi seetaan ko kër gi daa de toj. laay laay la xam ngeen kon googu kër jàmbaajoona mais Maître El Hadji Diouf yàlla mi jël na équipe Sénégal yóbbu ko final. amiin waay. bu defee fii nga toog nii tembe. waaw nii nga toogee nii ten jàmbit yàkkaloog télé bi. arbitre ba Cheikh Mbib ba ne far ñu ne ku la xew Sénégal jënd ndam li première réaction maître El Hadj Diouf lan lay doon. jooy. jooy. li ma joxe mooy. looy jooy. jooy ak jooy kontaan. laay laay li la jooy xam nga jooy. ñaari jooy jooy musiba ak jooy ba neex. mais man boobaa jooy baa nag laa jooy xam nga loolu yombul. yombul yombul Coupe d'Afrique bi mu ba léegi sénégalais musu ko teg bët. Mhm. ko bët ginnaaw yàlla ak moomeelu Macky Sall. ah, ah loolu loolu yombul. ñëpp xam nañ ne man Saalum Saalum laa. booba balaa cin bu naree neex bu baxee. la muy saf ko ko ñam moo ko xam. moo ko xam la muy saf boo ko bëggee xam te man ñawuma ko doo ko xamee. ko xam laa ilaaha illallaah. fa dëkk Saalum. Saalum nga dëkk. xeeb naa benn leket. ah waaw. maître loo def. day may déglu laaj. nga ma parce que boo amul dégg day ma yàqal. maître loo bëgg def. ku lakk kaay. Sénégal jëlal ku jël coupe bi. jël coupe jëlal maître ku jël coupe Sénégal la jël coupe ay ay ko lakka daay ji Sénégal la lakka kaay jalal maître yaa ko eh, lakka kaay Sénégal la lakka kaay waay jalal loolu waay ñëwal maître ñëwal ay eh, eh, ko lakka kaay oh. Sénégal la lakka kaay yow oh, jalal Sénégal ay ko lakka kaay ay ah. dama na lakka kaay yow oh, jalal ko lakk kaay. KSP ma lakk kaay. waaw waaw loolu mooy premier bi deuxième aja. même monsieur yow même même monsieur waaye. waaye maître la jël ay ah maître bàyyi li ngay def waay. waaw waaw maître bàyyi li ngay def waay.